la euh, ziyaare bu baax ci weeru gàmmu gi. jërëjëf. di kontaan ci daje ak yow. Mhm. yow sama wëllëre nga. yàgg na depuis Seneweb nga ma fa daan invité ñuy waxtaan ci situation réew mi. di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci biir réew mi ak ci bitim réew. Mhm. di nuyu nag waa MODAP mouvement des doomu daara patriote. Mhm. waaye particulièrement maa ngi nuyu sama leader le président Ousmane Sonko. ak mbooleem. ñu koy jàppale ci liggéey bi yëpp. Mhm. di beral nuyoo nag kilifa diine yi maa ngi leen di nuyu baax di leen ziar. Mhm. di profité ci weeru gàmm ku mel ni Serigne Habib Sy. Mhm. Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh. maa ngi koy nuyu bu baax ndax gàmm gi ñun moom lañ gàmmool. demoon nañ fa seeti ko vraiment mu teral ñu. waxtaanal ñu. ñu ngi ci profité di ko nuyu particulièrement di nuyu waa xadar bi yëpp. sëriñ Babacar Sy Mansour xafisahullah wa ayyadahu wa nasara nuyu nag mbooleem xalifa généraux ba dem ba Kaolack ñaseen mhm. parce que ku mel ni sëriñ maa ngi koy nuyu parce que man moom fépp laa am ay xarit wax dëgg yàlla macha allah kon daal di nuyu umma bi yëpp di leen ndokkeel ci weeru gàmmu gi mhm. di la jaal aussi mhm. xalif bu piir waaw bi fi génn àdduna fan yee ñu génn di la ko jaal di ko jaal képp kuy jullit aussi waaw waaw laal nga yow fa am solo parce que le xalif de Pire Serigne Mansour Cissé. Mhm. mën naa ni ndijaay la ci man papa la ci man. macha allah parce que ni ñu bokkee dafa jege ba mu ëpp. lañoo mhm. bokk ci côté dafa bokk ak sama yaay ci Cissé gi. Mhm. bokk ak sam papa parce que sëñ Mansour euh, Amadou Cissé Pire bi ko jur. ak Astou Cissé bi jur sam papa ñoo bokk ndey ak baay kon mën naa ni sama ndijaay la. ma xam ak sama papa ay doomu ndijaay doomu bàjjan lañ. benn la. waaye nag particulièrement mu nekkoon sama xarit man. macha allah personnellement ñu daan seq ay relation yu sori woon. Mhm. mu yariñu foofu ci xadara boobu. mooy mhm. xadara tafsir Abdou Cissé. Euh, kon sëñ Mansour daal liñ mën a wax ci moom mooy nit ku baax la woon. Mhm. waaye nit ku modeste la woon. et nit ku honnête la woon. li gën a jafe ci réew mi yàlla defaloon na ko mooy honnêteté. lépp lu mu la wax rek loolu la gëm. macha allah ku nangoo woon a liggéey la tamit. parce que mosul toog di yaakaar addiye bu ko taalibe di jox. dafa nekkoon entrepreneur di liggéey. macha allah daan gagné ay marché pire googu mën nañ ni lépp loo fa gis comme bâtiment ci ndigalu Serigne Moustapha Cissé moom moo ko tabax. am na solo kon sëñ suur ba pare nekkoon ku modeste nag ñu tuddee ko El mën Mansour. ah bon waaw El Hadj Mansour lañ ko tuddee El Hadj Mansour moog sëñ Babacar si. ak Cheikh Alhaji Abdou Aziz ñoo bokk parce que Seydi Hadji Malick a leen jur mu jël ci turandoom lu baree bari sëñ mm-hmm. Mansour man nag dama ko xam parce que waxuma ni parce que sama mbokk la man du ma seedeel nit parce que sama mbokk mm-hmm. am na ñu ma bokkal aw ma du ma du ma leen seedeel lii waaye dafa fekk ne mu nekkoon ku ma xam ñu jegente woon ñi ñu xam famille bi yëpp ñu amoon xaritoo bi may tudd sama doom rek fii Dakar moo déplacé wu Pire ñëw tuddal ma ko macha allah te bi mu ñëwee daf ma ne man kat dem sax ci tudd sama doom yi sax suñuy tudd damay yàble mais yow moom jaral nga ma déplacé wu ñëw. Ah, loolu am na man man kooku moom yàpp naa ni famille bi yëpp waaw sama nit la woon sama ndijaay la woon mais sama xarit la woon ñu mhm. ngi koy jaale famille bi yëpp nag di ko jaal ña fa nekk mhm. nga xam ni tey ku ñuy pap Pape Abdou moo fa nekk mhm. ñu ngi ko koy jaal moo fa toogal famille bi yëpp di xalifa sëñ Abdou Tafsir Abdou Cissé di ko jaar sëñ Maodo Cissé sëñ Cheikh Tidiane di ko jaar sama papa Serigne magge Dramé. Mm-hmm. ak waa Andulaay parce que famille yi benn la Dramé ak Pire benn la. di ko jaal nag umma islam bi yëpp. macha allah ak alxadra almalikiya yëpp ñu ngi leen koy jaal. Mm-hmm. et puis ku ku waajaloon dee la parce que nagu nagu dëjëm sax mu jëndoon na ko avant muy faatu. est-ce que. kon pour wax la ni la moom waajaloon na. Mm-hmm. Ah, waajaloon na bis boobu daal. macha allah di ko ñaanal yàlla xaaree ko ci àjjana yu gën a kawe. alors euh, di ko jaal aussi suñu wëllëre foofu ca Pire mu di monsieur le maire Ndoye Mhm. suñu xarit la donc ñu ngi ko koy jaal bu baax a baax a baax alors tey nag bëgg nañu waxtaanee ponk yu bëree bëri ndax nag xam ngeen ni euh, jamono ji ni actualité bi xaw na yëngatu tuuti la ko yëngal bokk na ci li nga xam te ni jëm na ci wàllum euh, fiche parrainage yooyu nga xam te ne nii ñu ngi ko doon récupérer ji démb foofee euh, ca direction général des élections foofee nag mbir yu bëri am na fa démb loole bëgg nañ ko waxtaan ak jëmm ji nga xam te moom la ñu mu di imam Dramé euh, la ko jiitu tamit xam ngeen ne ci gàmmu gi tamit xamu ngeen ni euh, bëri na ay discours yoo xam te nii xaw na waroo jóge ci yenn ci kër kilifa diine ak yi woy politique loole yëpp incha allahu daañ ci njëw daal koy waxtaanee euh, ci plateau bi ak ki nga xam te moom lañu fi teewal moom lañ fi toogal mu di imam Dramé imam li ma bëgg ñu njëkk a waxtaanee moom laa mujjee wax léegi bu soxal wàllum gàmmu gi mm-hmm. gis nañ ko ni gàmmu gi ñu weesu quand même Euh, bëri na ay discours yoo xam te nii par ci par la ci côté yenn ci kër kilifa diine fës na euh, ñu bëri di ci commentaire ñu bëri di ci wax euh, yow mi nga xam te ni aussi yaa ngi jiite yaa ngi bokk ci kër kilifa diine sax déjà waaye tamit kuréel gi nga yor tamit wala bi nga nekk bi nga nekk porte parole ba. Mhm. foog naa ne doomu daara lañ fay wax. Mhm. donc sorewul wala mhm. benn la sax la ñuy wax. benn la donc imam kon yow tu es mieux pour wax ci mel noonu. alors imam nan nga jàngatee déjà. discours yi nga xam ni dégg nga ko ci gàmmu gi. waaw euh, ma ngi doon discours yi moom d'une manière général mhm. kenn ku ci ne ak euh, li nga ci mën a jàpp parce que discours yu wuute na ku ne ak fi nga tenir sa discours. buñ jëlee kaw Kaolack par exemple. waaw ak Tivaouane Amadou Ba par exemple gis nañ nii Euh, fële ca Medina Baye am na benn xalif bu fa yëkkati kàddu wala sax doomu euh, doomu kilifa bu mag. Maulana Cheikh al Islam euh, ni Amadou Ba cinquième président wala sax Amadou Amadou Ba président boog ba ba tuuri rongoñ. Mm-hmm. ñu dem fële ca diwaanu Tiwaawoon aussi dégg nga kàddu yi nga xam te ni jib na fa. Mm-hmm. maanaam nan nga jàngatee déjà kàddu yooyu noonu jëmee ci Amadou Ba ci la fekk moom day nekk président. waaw d'accord man daal li nga xam ne moom mën naa ko def d'une manière générale parce que mhm. man sama débat bugguma ko personnaliser ah, ah. Mhm. man damay généraliser pour au moins que wax ji am njariñ mhm. ñun dépa dépassé nañ ay débat wu personnel mais li nga xam ne moom mooy réel bi réalité Sénégal yëpp ñi xam réew mi xam nañ ko Sénégal moom fii ab discours sëriñ mënu fee fal nit ah bon loolu mooy histoire loolu histoire wane li ñuy tuddee la loi historique réew mi ab sëriñ mosu fee fal Oh, mënoo fee fal nit aussi. munu ko fi. pour pourquoi. parce que réalité bi la Sénégal réew mi ni mu bindoo mooy sëriñ si bu ñu leen di déglu ci diine lañ leen di déglu. mooy xaalallaahu xaala rasul nu ñuy jullee nu ñuy jàppee nu ñuy wooree ak sama samay bàkkaar su baree nu may fexe ba mu set samay dëkkandoo nu may rafetoo nu may rafetoog ñoom. Hmm. sama néew bi nu may fexe ba gaaw koo suul. loolu Sénégal gi loolu dañ ciy xaar ab sëriñ mu àddu ci. waaye nag ci wàllu politique. Mhm. ku may wooteel ak ku ma dul wooteel li histoire wane mooy mosuñu cee déglu ab sëriñ te loolu ñun ñi nga xam dañoo yaroo ci këri sëriñ màgg ci ba toll ni ñu toll xam nañ ci dara te ñi xam réew mi it xam nañ li may wax parce que Sénégal pëpp lañ bu yeew bu mature tey jii yow mbañoon boo leen wanee ne journaliste nga mhm. bët bi ñu lay xoolee rek mooy bëtu journaliste mhm. boo leen wanee ni fecckat nga ñu lay xool bëtu kat boo leen wanee ni yow da ngay def politique ñu lay xool bësu politique waaye boo leen xasee ba incarné diine diine lañ lay lañ lay lañ lay lañ lay la ñuy xaar ci yow tekkiwul nag ni diine ak politique mënuñoo ànd sëriñ mënta def orientation déedéet waaye li ma bëgg a wax nga xam ni boroom xel yi dinañ ko comprendre mooy mhm. Sénégal ab sëriñ mënu fee fal nit te musu fee fal nit au contraire li ñu gis boo àndee ak sëriñ sax da ngay loolu la histoire wane Abdou Diouf bi muy daanu xalifa yëpp moom lañu ñu àndaloon man sama baay ab xalifa la woon je parle en connaissance de cause yaa ngi dégg ma hmm. juddu ci kërug sëriñ màgg ci ba nii ma toll su ma ko ñemee wax ni kenn gënu ma fay nekk sëriñ ci réew mi yëpp na hmm? waaw waaw ñi ma xam ñi ma ñi may dégg xam nañ li may wax waxuma nag ñuy coow mais ñi xam réew mi bu dee li ñuy jàppee sëriñ mooy ko sa maam nekk wàllu yu nga donn ko man dama gëm ne sama maam kenn gënu ko nekk wàllu yu ci réew mi dañuy xam alaaj Ceerno Dramé xam nañ li may wax kon man xam naa li may wax waxuma nii pour di sànni ab sëriñ mosu fal nit ci histoire man nañ laa sax parce que réew mi moo dépassé fu ab sëriñ di influencer nit ci politique sëriñ xam lu ñuy déglu ci yow mm-hmm. euh, ñuy jullee nu ñuy wooree nu ñuy joxe asaka waaye wàllu urne de dugg ci urne pour nga joxe ci ndigal ñu appliquer ko amatul ci Sénégal mosu fee am sax d'ailleurs li histoire wane sax mooy sëriñ si bés bu ñu jógee ànd ak yow mooy daanu nga parce que boo amee boo amee yow discours bu baax xam nga sëriñ si fii li lii dëgg mooy sëriñ si sonnuñu sëriñ si yëpp ci luxe lañ nekk majorité bi boog ñu ñi sonn ci réew mi duñ ay sëriñ. Mhm. parce que système bi daf leen a protéger. système bi daf leen a boole. mais ñi système bi boolewul ñoo mooy les sénégalais de lambda ñooñu ñoom ni ñuy def bu dundu la ñuy wër te ñooñu ku leen jox solution rek lañuy ñuy xaar. yaa ngi dégg kon loolu débat la yoo xam ni. Mm-hmm. ñun ñi xam réew mi déglu naa ko mel ne doyen Mody Niang maa ngi koy maa ngi koy rendre hommage mu nekk mag mu xam réew mi. Mm-hmm. mag mu mm-hmm. am fit di jàmbaar. mu def ko benn chronique ci Pape Alé Niang wax ko. 2000 rek Abdoulaye Wade muy daanu sëriñ sëpp moom la ñu àndaloon. nit ñi def nii Macky Sall tey ñu ci baree bari noonu lañ doon def Ablaye Wade ñoom ñoom ak Ablaye dañoo ànd daanu kon maanaam ku xam réew mi sax di def politique yow dafa am fooy yem ak sëriñ si sëriñ si daal boo li ñuy xaar ci ñoom mooy ay orientation mais am na ay sëriñ soo xamante ne nii ni mhm. ñuy waxee en faveur de le président Macky Sall. Mhm. noonu la ñuy waxee aussi en faveur de ki nga xam ne moo nekk Ousmane Sonko di seen leader. Ah. loolu aussi nan nga ko mën a moom laa bëgg a wax xam nga man maa bokk ci Sénégal yi nga xam ne damay dem ak man dama bëgg am honnêteté intellectuelle mhm. xam nga man maa ngi ni ab sëriñ la loolu laa gëm damay joxe werd mhm. bokk ci famille sëriñ yor daara di jàngale di politique tamit waa déglu ma rek di imam mhm. kon man sëriñ laa ci li ma jàpp bu dee loolu lañ tuddee sëriñ donte man yanuma sax sëriñ gi man ak sëriñ tënkuma man liggéey laa gëm mais dama la bëgg a wax ni bu dee li Sénégalais maa ngi jàngale alxuraan maa ngi yor sama imam kon mais dama la bëgg a te maa ngi far kon kenn terewul kenn nga far mais li bon mooy ngay làqatoo diine pour politique man su ma demee bay politique damay teg fële diine ci di wax en tant que citoyen buy wax ku ma gëm ma défendre sa projet mais man duma ma làqatoo benn tarixa wala may làqatoo benn diine pour di defendre benn leader yaa ngi dégg. ok loolu mooy dëgg. mais est-ce que imam ah, lii terewul nag. Hmm. sëriñ si tamit waruñoo nangu ñu leen di génne ci réew mi ni muy doxee. parce que ay citoyen lañ. Mhm. am nañ du droit joxe seen xalaat ci réew mi. Mhm. Mhm. surtout ça. c'est important. mais nga fexe ba yow li Sénégal yi di dund coono yi ak jafe-jafe yi boo ci àddoo ñu xam ne yow réew mee tax ngay wax. xam nga tey am na fi sëriñ yoo xam ni te buñ généraliser tamit du sëriñ yëpp ñoo ànd nguur di leen xaramal loolu ñu koy wax ñu ngi ñuy tooñ parce que man sëriñ laa te ànduma nguur te xam naa ni ñuy àndee nguur amoon naa possibilité ànd ak ñoom parce que maa leen gën xam ñii fi nekk ñëpp. Macky Sall ko koy xam maa la ko gën a xam mais damaa def choix and ak peuple bi tey ku mel ni sëñ Habib Sy doomu Cheikh Alhaji Abdou Aziz dafa def choix ànd ak peuple bi sëñ Abdou Mbacké dafa def choix ànd ak peuple bi ñun Sonko lañu àndal ñun Sonko moomuñu Sonko bu fi continuer woon di dem ñun dañuy exister ñun exister dañ ba pare ñun réew mi lañu àndal man réew mi la àndal parce que damaa gëm ni Sonko dafa nekk ci dëgg moo tax ma ànd moom c'est important ça veut man débat wu sëriñ dama ko close xamal lu tax Sénégalais yi peuple bu mature lañ bu ñor xom lu waaye waay lu waay di wax xam nañ ko lu waaye di waaja wax xam nañ ko yaa ngi dégg. d'accord mais imam maanaam boo bëggee daal sénégalais yi boo génnee ci mbedd mi jox la ñaari loxo waxal lu cohérent mais imam dafa am lu am lu am benn phénomène bu ci réew mi boo xam te ne nii foog naa ne yow. Mhm. kuy bàyyi xel bu baax a baax a baax tolluwaay réew mi nga. Mhm. mun naa ne sax imam 2.0 nga su ma ko su ko permettre. <laughs> <laughs> deux point <laughs> voilà alors c'est juste pour remontrer que ne rek kuy bàyyi xel bu baax nga ci réseaux sociaux yi fépp quoi voilà am na phénomène bu am mooy que ne war ma gi nga xamante ne nii mhm. defoon nañ ko ci kilifa diine wala kër kilifa diine yi mhm. ça ça tend à disparaître maanaam mhm. war ma gañ leen joxoon ak nañu wagaar gañ leen wagaroon dafa dem ba léegi loolu amatut wala dañuy sentir mu ngi disparaître ku wax souvent sax jëmale ci beneen boor ay saaga dal sa kaw loo gis la lu am la mhm. ba yenn ci kilifa diine sax da ngay génn ñuy naqar lu ni mel bay jooy yow loolu na nga ko jàng daal li ma gëm mooy li ma du waral loolu quoi lan moo lan moo ñu yóbbu hmm. ba ñu toll foofu noonu instant yi ci réew waaw kay xam nga arab day wax ne li kulli shay'in sababun lépp loo gisee am na lu ko sabab Sénégal bu njëkk boo fi tuddee ab sëriñ nit ñi dañuy daanu ay jël di yuuxu hmm. wala fu ñu ko fekk yëkkati ko hmm. waaye wolof dafa wax ni boo wàccee sa ànd ànd boo dem fekk ci borom. ça veut mais déggoo wolof wolof nee na boo wàccee sa ànd sëriñ liñ xar ci moom mooy mu ànd ak peuple am mooy bu peuple am nekkee di subir ay jafe-jafe mooy mu ñëw rangé wu ci ginnaaw peuple am te loolu sëriñ Tuubaa moo ko jàngale. Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul da koo bind.